am la tamit ci safu waali nga mhm. bok ci ñi koy xelal ñi koy voilà ñi koy ñi koy yor pratiquement mhm. naka ngay bolé ñaari mbir yooyu noonu ak euh, xamné tournage temps bi muy jël ak lu mel bon c'est pas compliqué parce que man parce que man je suis suis suis né occupé ah, man surtout boy développer waaw bi ma ba légui yalla daf ma dimbali bima xamé ba légui euh je suis actif ci art art amul heure hein lu ëpp ci ci artiste bi guddi lay liggéey lu ëpp ci artiste bi euh, liggéeyam amul amul amul arrêt tu vois donc waaw donc euh, c'est pas compliqué hein? c'est pas compliqué dañ koy alterner rek bu ñu waree def euh, studio ñu ñu ñu ba pare waali tamit xam nga waali du du du xale boo xamante ne danga dañuy jàpp ci loxo bi di ko di ko di ko kii waaw lii la rek la ñuy wax lii la ak lii ak lii ak parce que man je suis euh, euh le directeur artistique bu bu hein? euh, et nekk ci team studio mooy que ne li nga xamante ni dañ ko war a génne ah. moom la ñuy saytu moom la ñuy liggéey moom la ñuy tu vois ci côté boobu la ñu nekk ah. donc li ma def hmm. lu ci ëpp ay wax la rek ak ay tegtal ci des dafa am ñeneen ñu yor Papis ela là ah euh, Fefsi ela là tu vois Seydou Boy ela équipe bi xam nga Amady Badiane ela tu vois gars dañuy job en équipe donc Euh, compliqué wul quoi bu ma waree tournée ji dama def ah gars yi dama am tournage. waaw waaw waaw. mais critique yi ñuy gis fi mu nekk nii ci ci safu pas ci saf mais ci Wally Seck. Mhm. Euh, mooy bi Covid bi tàmbalee ba léegi gis nañ ne secteur musical lu ci bëri dafa dafa taxaw maanaam génn yeeg prestation yi amul. Mhm. waaye nag terewul ak streaming ak fi nga xam ne moom la numérique toll am na yenn artistes yu yu yëngu te loolu gisuñ ci Wally est-ce que loolu war leen cee liggéey wala fan la fan la sooxe. yëngu yëngu yëngu ça veut dire bi. yëngu yi ay concert yu am en ligne. ci ci yenn plateforme yi au niveau de voilà nga xam nañ ko annulé woon dañ ko mujj def en ligne ñi ko waroon seetaan seetaan ko te non non non non loolu loolu non benn benn festival amul en ligne Sénégal gii non non non festival en ligne amul fii am na bu am rek Dubaï Istanbul kan moo ci participé ci fan la festival bi festival en ligne lay doon ci support de communication streaming

Wali est le premier artiste pour initier Def Produit. Def Production. On a fait deux EP. EP en français. Tout d'un afromix 1 et 2. Lolo, nous avons tambali. Nous avons de du roi. Nous on est on est des créateurs. Nous créons. Nous créons. Gaï

ŋaayoo ak njëkkante affaire bi du ay joué ci ay plateforme am na bu ma seetaan fañ ko doon joué sax adéquat wul ñu wut ay jumtukaay dafa jot infrastructure musicale foo xamante ni boo fa demee di jouer di nga am l'espace qu'il faut tu vois salle de spectacle yu yu mucc ayib non c'est pas à l'artiste de gérer ça artistes yi dañu sonn amuñu dara gis nga xaalis bi ñu leen mais mais xaalis bi ñu leen dimbalee ci ci ci ci ci ci ci euh, ci Covid bi euh, ah. ay cent cinquante la ci artistes yi am lolu ban njëriñ la am. Hmm. tour bi mo fi nekk tour bi mo fi nek donc man. industrie musicale bi lañu industrie musicale bi la ñu war mu mu taxaw man je suis pas dans barke rasoulillah à à une semaine du confinement lañu ñu ñëw proposer ñu des centaines de de de de de de de de spectacle yu ñu def en ligne mais megul sense megul sense li tax li megul sense moi euh, njëriñ li bëriwul si c'est pour se faire de l'argent ñun on voulait pas le faire euh, euh, ci ci ci ci façon boobu tu vois nañu fexe gars yi ñu am jumtukaay lu ñu soxla outil de travail industrie de travail ñu am ko. environnement musical bu ku dina mën épanouir. mais nañ waxanté dëgg. ok li ci moy euh vraiment au début c'était pour accompagner les Sénégalais on a réussi à le faire accompagner nañ leen gën nañ ñaari EP euh, e comme je viens de le dire Afromix 1 et 2 mais yagul fu mu nek né wala dafa nek ci ci ci ci di wadjal album international Euh, waaw xam nga xami nax di ca tàbbi dafa bëri ci Sénégal ñun nag bëgguñu loolu bëgguñu xam ne lii ay naxe mbaay la ñu cay dem parce que euh, yow li nga bëgg yëpp amoo ko nañu fexe musique bi am cëram xami nax di ca tàbbi mooy lum la leer ne jëlewoo ca dara nga cay dem di ca sonn vraiment Nous nekkuñu ci ci dynamique boobu day préparer album international album euh, à terme li date la voilà ci date la ñu parce que par rapport à la euh, situation mondiale ah. xam il Covid ñu la a maison de production distribution lay génn donc ci fan yu néew incha allah. rabi doon wax ne voilà wali dugg ci scène international seen seen réponse léegi ñu léegi ñu jot ko. oui seen réponse léegi jot xam nga xam nga xam nga gars yi xamuñu naka lay demee xam nga xam nga ne ci coow li xam li waral coow li da ko gën. waaw gars yi nag dañu dañu ne ci coow li rek te xamuñu luy waral coow li. mais yéen a leen war a xamal li ne ci coow li. waaw mais nga laaj. Uh-huh. nga laaj parce que boo toogee nga ne oui Wally dafa war a waay international. mais international du marché du marché bu tas. foofu pour nga dugg fa dafa am ay ay ay ay lu la fay dugal uh-huh. xam nga tu vois parce que suñu problème ñun dañu def ni mu jaxoso ci ñun moy lima doon wax xami nax di ca tabbi ñun amuñu marché ben artiste mënul jaay album wa duñu jema a lolu ba paré international amuñu jëriñ sax fexé ba musique bi ñu fi dund fi ci réew mi mais mais la musique c'est pas pour les chanteurs seulement y a les instrumentistes te fi gars dañ leen di fàtte rek nañu fexé ba instrumentiste mais faalé wuñu leen

donc ñun ci loolu la ñu nekk incha allahu rabbi ci fan yu néew dinañu gis Wally Seck ci album international boo xamante ni bëgg nañu bu génnee buñ ko wonee àdduna ñu ñu ñu ñu ñu accueillir ko consommer ko euh, d'une façon boo xamante ni dina leen leer ne li taxoon ñu tëju di liggéey jar na ko bu pour ñu terminer ci ci ci ci Wally Seck gis ne fan yi lu lu bëri ñu koy ñu koy dégg ah, ci ay ñoo xam ne ay gisaanekat lañ Sénégal moom yooyu daf fee daf fee bëri ku bëgg a siiw sax mun ngaa wax ci koo xam ne ñu ñëpp ñëpp ko koy waxal ay juru feebar mel noonu ndax yéen a jot euh, wax wax yu mel waaw bu baax a baax a baax a baax mais xam nga Thione Seck wér na siiw du jaami borom ah. <laughs> mu ne maa ci xam dara ah. lu yëngu yow lañ koy jiiñ seen waale muy pikiru fan yi xaw xaw ma lu mel noonu non non non non non non non waaw waaw mais pikiiru sax <laughs> pikiiru moom. Ah. pikiiru yëpp lu lu normal ah, <laughs> ku feebar pikiiru. <laughs> Ah, waaye dara jotu ko mi ngi sant yàlla bu baax Lat Diop dëgg ba yàlla bu ko dara jot. mi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi ci liggéey soobe yàlla ak yonent bi bu génnee li ci des mooy sénégalais yi sénégalais yi ñoo war a jàppale seeni artistes. gis nga khalifa mm-hmm. da ngay jékki-jékki ñu ne benn mbeur febar na mm-hmm. ñu ne benn artiste febar na nañ ko dimbali ndaysan léeg nga gis ku ku borom xol bu rafet bind na ndaysan artiste ah li tax buñu ñu fi ñuy ñuy am problème mais c'est simple yow mi bëgg artiste bi assurel ko rek at bu jot nga jëndal ko benn CD ci lu koy défar la mais bu woté nga jënd bi donte 10000 francs lay jar cede lu mu cher cher cher 5000 lay jar maximum prix de Sénégal 5000 5000 francs mais waaw ah donc yow mi jël son artiste bi diko, diko, diko envoyer WhatsApp ah. mais yow yaa tax ah, artiste bi bu feebaree mais nous que di ñaan ndimbal waaw yow mi artiste bi di événement événement ngay ñaan billet mais yow yow yaa tax artiste bi feebar teud, te yëgoo ko donc c'est facile yomb na même pour disque d'or c'est pas normal ñuy un disque d'or diko xaar ci étranger yi mais pour lan c'est de 5000 lay jar 3000 4000 ba 5000. mais yow Séné mais luñ ci mais mais liggéey mais non artiste bi xam lu ko war. génne génne produit. mais porteur de voix bi tamit war na mun non non non porteur de voix bi li ko war mo xana xam artiste waru sax def promotion. c'est pas l'artiste de faire sa, sa, promotion parce que euh mom li ko war moy xalat très bien génne production. génn production ñëw présenté yow mi nga xamante ne bu génne nga ne ay yow kii ni ma neexee ay ni ma ko bëggee mbaa yow waa yow lan lan lan nga warloog moom ñi may woo ci Sénégal di ma defloo vidéo anniversaire ci Wally bokkul ak ñuy woo Ndiaga Euro bokkul ak ñuy woo Amady Badiane bokkul ak ñuy woo Mbaye si Ndiaye bokkul ak ñuy woo Cheikh Anta je veux ku kum la leer ku ñu kum leen leer ne jege nga Wally rek liñ lay ñaan ci vidéo anniversaire par par par bis mais ñoñu buñ ko jëndoon seede wali wali am waxuma le disque d'or waxuma le disque d'or platinum lay am barké mohammed donc c'est quoi le rôle des sénégalais dans tout ça pas meloman sax mais sénégalais rek parce que en tant que sénégalais war nañ mëna a lool tamit liggéey bi wala au delà de sénégalais état bi lu mel ni BSDA am na liggéey. billaay ñoom seen na sénégalais bi engagé wu kii bëgg artiste bi moom na engagé wu rek ni. at bu jot ma may artiste bi cinq mais solution la ci mais solution la ci jëndal ko yow benn seede rek at bu jot assuré ko ko ñu dem juróomi at nga xool léegi boo ko defalee loolu bu feebaree bay xaru wala dë sa yoon nekku ci la nga waroon def def nga ko comprendre nga mais ñun ñoo amul habitude di jënd te musique dafa toll foo xam ne nag mais. na doon tamit ne doole Sénégalais yi parce que ci vingt cinq pays yi <laughs> doole gi moo moo yeggul ko waaye pour pour pour ñu avancer. ku ci ne whatsapp whatsapp ci smartphone rek lay dox. smartphone jarul jarul juróomi téeméer. Ah, ah voilà. <laughs> dëgg la bu bu ñu waxee ci ci leneen wax na ci ci euh, carrière euh, acteur bi ci accompagnement euh, Wally Seck waaye tamit li ñu la njëkkee woon xam mooy ci ànd ak ñu papa ji nga xam mooy Doudou Ndiaye. Mhm. est-ce que voilà nekkut ne da nga da bàyyi loolu lépp complètement fi nekk nii. mais xam nga nag xam nga du bàyyi xam nga aar kenn du aar aar amul retraite. aar kenn du ko bàyyi mais euh, ci mbirum tëgg moom yaakaar naa ne conseil laa ci gën a doon que waaw ndax tëgg yi fi xale la te dafa am fay toll di jàngale mooy sa sa rôle. waaw jàng jàngale doon xaar tey héritage yu Doudou Ndiaye Coumba ay école ci bitim réew ñooñu ñëpp ba tey demande de formation boobu mi ngi fi. mi ngi fi mi ngi mi ngi fi mi ngi dox bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga loolu soxalu leen. sénégalais yi moom dafa dañ ne buñ ne gis nga léegi buñ ne aar sax musique la ñuy wane te musique du aar du musique rek tëggkat tamit ñoom ñoo yemale mbir rek ci sabar waaw ah. ah, mais mais mais mais loolu mais mais mais ñu ngi mais mais ñoom tëggkat yi def sabar ñu ngi wër àdduna di jàngale sabar mais sénégalais yi newuñu ci domaine boobu je veux dire ñiy seetaan ak di suivre musique consommateurs yi comprendre ñu milieu boobu alors que milieu boobu milieu bu riche la milieu bu bu bu bu am maanaa la ñi ci ne xam nañ ne wéet giñ ci wéet sax def ñoo neex nañ ñu nañ ñu ba foofu rek ñu ne waaw ñu ne waaw ñu ne ci suñu peggu soxla lu ñu kenn dara ay ndaanaana ca ne di di def li ñuy def ci pet yàlla di leen teral ñuy dimbali seen bopp di dimbali seen mbokk te coow jibul amul concurrence amul reyante amul amul buzz non famille bëri na sax famille bëri na parce que famille géwél yi ne Sénégal bëri na foo boo demee mbuur tey tubaarkàlla Euh, kër yëpp ñu ngi à l'étranger te defuñu fa dara lu aar. ñëpp a ngi ciy suturlu ñëpp suturlu foo munti dem ci Sénégal ay doomi géwél ya fa ne seeni ñaar ñett ba ñeent ña nga Europe. di di yor la seeni maam yoroon di ko doxal di ko teg ci yoon. man 94 laa njëkk a dem Japon tëgg moom fa yóbbu 87 le du njaaroos njëkk a dem Japon ba 2014 dem na Japon. pour un spectacle donc mais euh, comme spectacle fii Sénégal lañ les ballets les troupes euh, traditionnelles mais ils fonctionnent hyper bien mais amul buzz gis naa la benn yoon nga nga présenté benn émission boo xam ne ba invité woon Wally Seck ak ak ak waaw on it waaw waaw on it nag sama sama concept la sama émission la boo xamante ni sama concept la man maa ko xalaat maa ko moom ci gàttal fan la dawoon defoon ko ah, dañ ci def nekkoon na en partenariat ak DTV vraiment ma leen di saluer de passage ba ñu demee pour ñu def ko dañu ko yombalal wax fa dëgg yàlla liggéey ci liggéey bu mucc ayib mais ci fan yu dañ gisaat on it waaw waaw bi yoon nag day doon. sama carrière présentateur de bu ne ko xaar ci. ah mais bien sûr ah, ah. man je suis je suis non non ah ci laa bokk de ku ma ci mën a génne man je suis animateur mais mais mais xali xalifa man xalifa ah, man maa njëkk def Africa 7 émission olof. waali ci émission la njëkk a tàmbali maak moom def naa ko waali star euh, Ramadan des stars sur l'Africa 7. ah may nuyu laay <laughs> sama xarit grand laay hmm, waaw waaw boobu Africa 7 laa nekkoon di comme présentateur di présenter di def émission waalee ma kidnappé rek mais man je suis man euh, média rek ma ñor man wax rek laay def waaw man wax rek laay def waaw ay ah, waaw xam nga waaw mooy li ma lay xam dafa dama dama yëgoon ci man lu lu bëri luy nelaw loo xamante ni euh, xam naa ne du du du yeewoo ci àll bi ma naa dellu sama réew ma xam naa nag ñuy may rek pour ñu pour ñu tëj euh, ki infidèle jot ngaa wax ne ko voilà la fi newoon am na lu fi wàññeeku. waaw xam nga dina ñëwaat non dina ñëwaat <laughs> day réer a feeñ. waaye bu yoon bu ñëwee du dem. Uh-huh. bu yoon bu ñëwee la dul dem non ñëw day xam nga et que. Uh-huh. et mun na am sax soxna si moo koy nelawal te du ko yëg. ma gars yi ne ci kër yi du ñu waxtaan ak soxna yi. soxna yi ah sujet bu ñu war a waxtaanee la gars yi nañuy waxtaan nañu close. xam nga bokk ak nit kër te amu leen hmm. contact. du ngeen amee contact lu dul ci biir néeg bi mais loolu nelaw loo na leneen lu dul leneen lu dul ngóora gars yi nañuy waxtaan moo tax mais mbayang bu la dara maa ngi ñëw léegi mu ñëwee mu neex incha allah. waa xalifa jërëjëf man moom euh, maa ngi yéen ñoo far lépp loo xamante ni lu nit di wut la te yaakaar ne dina jëriñ réew mi dina jëriñ donte ñaari net la sax ci domaine bi ñuy yëngu dañuy am fierté def ko donc c'est avec plaisir ak euh, un cœur ouvert Euh, ma koy def euh, sama kàddu gu mujj day doon rek ñaan jàmm ci réew mi ñaanal ko képp kuy xëyee ci réew mi waaye ñaanal ko waa bitim réew it ndax euh, jàmm ci la lépp xaj mais di di am benn seetlu boo xamante ne dama ko gis fan yi ci ci ci ci ci waaw ci ci musique bi mooy que ne gis naa ne gars yi ñi ngi ñi ngi joob wax fa dëgg yàlla chapeau à tout le monde aux producteurs parce que réew mi dafa rafle producteur donc bu amee ñoo xamante ne ñi ngi jóg pour dimbali xale yi sa xale yi ay victime la ñu xamuñu dara donc dañ leen war a jàppale dañ leen war a encouragé et puis affaire bi dafa war a neex xalifa dafa xalifa dafa war a ci ñëpp dafa war a neex ci ñëpp affaire bi warul yem ci waali rek warul yem ci Papa Diouf rek warul yem ci ci ci ci euh, kenn rek dafa war a nice xale yi di di di am mag ñi di am mais jeune talent yi di am mais loolooy tax affaire bi neex xam nga concurrence du ñàkk waaye na rafet donc euh, chapeau à tout le monde gars yi ñu ngi joob job gis naa Abdou Guité fan yi mu def produit bu am maanaa ah coup d'état ñu ko ciy félicité jéego affaire bu nice wax fa dëgg yàlla gis nañu boy yi ñi ngi ñëw ah Ibra Naajo Sidi Diop Bas Cung ah c'est extraordinaire noonu la war a demee mooy tax affaire bi xumb mooy tax affaire bi nice donc góorgóorlu leen mais ngeen fexe tamit mu doon na am qualité rek bu amee qualité mel na mu war a mel mais ñëppay kontaan sama rak Tarba Mbaye ah, macha allah donc affaire bi noonu la war a demee dafa war a neex xam nga dafa war a neex donc euh, remercier la. di remercier Maguette di remercier Amadou vraiment di ñaan jàmm ci réew mi ah, ñaan yàlla dimbali ñu ba la musique sénégalaise bokk ci musique yi ñuy gën a déglu ci àdduna ndax bu boobaa ñun rek lay jëriñ ci ku mu mën a ne ci loxoom nag baax na. lu bëri génn fi wax interview sur métro Dakar la woon jërë ngeen jëf yéen ñu ci topp